واقتدي به لسان العرب وقل له حلاوة وقودا يا من بلفظ أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد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 ولكل المؤمن مسلم محسن الشعيب فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه السرور لنبي ولمن يختفه صلى الله وسلم عليه له في آله وصحبه وكل من تلاه nu ngeen déggee li ñu doon jàng ci ñu tënkal leen ko ci wax bi nga xam ni ñun moom lañu nàmp muy biñ ko jàngee ci luxatul arab ñi di ko wax ci waxu wolof tam nekk wax bu gàtt mooy ñun nañ nekk dëgg-dëgg jullit te li ñu yàlla tànnal ci jikko bu rafet ak pas-pas bu wér ak wax ju dëgg ak jëf ju dëgg ñu sax ci loolu xam nga loolu dafa ëmb àddina rek buñ ci yamee ndax nit dafa munta génn ci jikko munta génn ci pas-pasam munta génn ci waxam munta génn ci jëfam ngeen di moytandiku bu baax ci bokk na ci li nga xamante ni moom la yéefar yi di xeex ak ñun jullit ñi mooy ñu dem ba yàq sunuy pas-pas lu nekk rek ñu indi ci moderniser bokk na ci suñu lislaam bii bëri na ci ustaas yoo xam ne tey ñi ngi ci rajo yi ak ci jumaa yi di waraate te fekk na booba yéefar yu mag yooyu ñoom ñoo leen fa teg ngir ñu man di leen défendre di leen peleteel seen bëgg-bëgg yi nga xam ni bëgg nañu askan wi di ko jëfee te loolu buñ nee yéefari rek mooy franc-maçon yi ba tax na léegi gis nga waxtu yi nga xam ni moom lañ gën a fonk muy koor nga xam ni koor ci la lépp julit daje nga xam ni fan yépp ajjumaa ci gën weer yépp wéru koor ci gën waxtu yépp waxtu laylatul xadar moom moo ci gën nga xam ne loolu yépp nag dafa dajale ci wéru koor waaye gis nga wéru koor boobu bu ñëwee dinañu fexe ba nax jurit yi dugal leen ci ay miriya ay werante bu kuy ñëwee ñu ni ñu ngi fanaanee waxtaane tey Seydi Alaaji Malik bu subaa ñu ni ñi ngi fanaanee waxtaana tey cheikhul xaddim bu ginnaaw subaa ñu ni ñi ngi fanaane waxtaana limaamu bu ginnaaw subaa ñu ni ñi ngi fanaane waxtaana ma ibrahima baay waa alaaj ibrahima waaye franc-maçon bi li muy liggéey ci biir loolu mooy day fexe ba bu kër gi fanaanee waxtaan bu gëneen kër gi xëyee weddi waxoon lépp moom loolu ciy bëgg yow nag sa gis-gis danga naan kii li mu bëgg lu baax la ndax dafay wane ak maanute mooy tax ñaare boo déggee ñu teg way wii léeg-léeg nga dégg ñu teg woy wii ndax am noonu la waroon a demee waaye kiy jëf moom amu ci boobu objectif maanaam jubluwaay boobu amu ko mu ngi am rek ci xàjjat la jullit yi dañ moytu loolu bu baax ñaareel ba itam bokk na ci sunu ponk lislaam yi ñu ngi koy dajji benn par benn di sànni ba nga xam ni nit ñi dañuy woyofal maanaam diggante koor ni nga war a fegoo ci sa biir koor ba doo wax ak sa soxna fegu ko daal ba du la indil benn seytaane ba sa koor di yàqu ndax saa yoo wooree sa xel nekk ci sa soxna ba nga jaxasoog moom rek sa koor yàqu na bu ko defee ñoom ñi lay jàpp ndal nag bunt yi nga xam ni mooy bunt seytaane yi mën a aw ba yàq sa koor ñu moytandiku ko ko mu mel ni koor itam dafa am lu ñuy wax muurum koor nañ ko nañ ko fonk tañ koy génne te muurum koor nag dafa am ñu ñu ko war a jox mooy faqiir ak miskin te muurum koor itam nañ koy génne ci waxtu wi ñu xam ne ñun moom lañ ko jàng ci téere yi mooy bu jant bi soowee bañ ni weer yi feeñ na am na nag ñu ni mën nañ koo génne avant ñaari fan ñun jànguñu loolu xëy na gisiinu jamonoog tolluwaay jamonoog yooyu moo fa àgg am na ñu ni mën nañ koo génne ci xaalis ba tey ñun jànguñu loolu li yonent bi wax daal mooy li ëpp ci dund gi mbooloo mi di dund mooy population bi di dund bu doon fii ñun dugub lañuy dunde wala ceeb ci loolu lañ koy génne am maa gëm itam ñi ko wëlbati ni mën nañ koo génne ci xaalis dañoo bëgg rek ki nga koy jox mën naa am boo ko ko joxee mu man cee faj yeneen i soxla yeneen i soxla ndax moom aajoom faju rek lañ bëgg ba moom kooku aji ñàkk jooju mu ànd ak nit ñi feet kon loolu tamit ñun ci sunu tollera dinañ ko nangu dinañ xam ni loolu du dara ndax bu ma la waree jox ñaari kilo ceeb ak genn wàll ma jox la téeméer ak juróom fukk téeméer ak juroom fukk bobu man na am bu ma ci génnee sama wa kër ñëpp dajé ak sa loxo nga man ci xottil soxna si man ci waddu doom ji man ci sol mbub mo and ak nit ñi ñëw ci jotaay bi jull kon loolu itam buñ ko dàq nañ ko nangu te xam ni war na mën a nekk waaw nit ki nga koy joxe itam teel cee jot maanaam mag ñi ko joxe ci guddi gi ndax bëgg sutura wax nañu itam bu jant bi di fenk mën nañ ko joxe kon nañ bàyyi xel loolu bu baax tey nag sama ba ak yéen li ci gën a am solo mooy may sir mooy carte carte tey benn tomb boobu dong laa ni moom laa bëgg a wax ak yéen te bàyyi ko ndax fi mu ne nii franc yi dañoo bëgg sunu doomi julli yii liggéey du nekk ci seen bopp te fi mu ne nii réew mépp àndandoo nañ naan naar bi naar bi naar bi naar bi ba Touba Sénégal kapp bitim réew fépp naar bi rek te yàlla daf ñoo araamal carte wërsëg du jóge ci carte te naar bi daf ñuy carte loo kon bàyyi ko ngir yàlla xale yi fexe nañ ba fi mu ne nii ku nekk sa portable bu baay sax wala sa portable bu yaay bu ko tegee dem ci wanag wi di sangu bala moo ñëw nga jël ko la ca nekkoon ci crédit nga jox ko naar bi toog ah? waaye lii fu mu ñu jëmee naar bi moom bu jëlee ci ñun fukki milliards jox ñu cent millions ñu yaakaar ni am nañ lu dul jeex la mu jël ci ñun moo ëpp fuuf. kon daf ñuy wala karalo te nit sa yu defé ci bopam bi ne man na tedd te du liggéey loolu mooy delloo am réew ginnaaw am réew liggéey moo koy jëmale kanam li ñu bëgg def ci suñu bopp yi nañ ko nañ ko bañ jàpp ni war ngaa mën a tekki ci carte loolu delloo am réew ginnaaw la bu ñu bëggee réew mi jëm kanam nañ ñu jox ay procès yu ñuy liggéeyee financé ndaw ñi ah bu ñu financé ndaw ñi ba noppi former leen accompagner leen boole leen nit ñu am xel ñu ñu teg leen ci yoon réew mi dina suqali ko waaye buñ ñu bëggee indi naar bi dégg nga ñëpp fanaanee carte ñu naan diw gañe na deux cent mille diw gañe na mille gi gañe na un million rek dégg nga maam gone yi xëyatuñu liggéeyatuñ kenn da gis ndaw loo xamante ni deful dara lu dul bëccëg gi lépp da koy nelaw guddi gi da koy fanaanee carte ba asamaan set señ bi loolu day delloo am réew ginnaaw ndax am réew dañoo soxla ay médecin yuy faj soxla ay mécanicien soxla ay mëloor ay tabaxkat ah lu nekk ay soudeur loolu lu nekk dañ koo soxla kon nañu jàngal ndaw ñi liggéey ak gore ba ko loolu moo loolu mooy makaarimul axlaax waaye ñun senegaal ki gën ci ñun mooy ki ëpp alal yaa xam sa alal noo ko amee waa ji tedd na waa ji tedd na ndax am na alal am alal ak tedd bokkut am alal ak tedd bokkut alal man nga koo amee nu ne mais teddaa nga sun borom moo koy moo koy joxe ah kon nañu nañu bàyyi carte ndax yàlla kat nee na carte ak naan sàngara dafa bokk ci jëf ji nga xamante ni moom la saytaane gën a bëgg ci judd ci ci ci ci doomu aadama kon loolu jëfi saytaane la yàlla nee na bàyyi leen ko kon nañ ko bàyyi ah waaye fi mu ne nii da ngay dem ci kër fekk fekk ñaar fukki junni réer fa ñeent fukki junni réer fa lu daawul am ñu koy ay gardien ah kii ñëw ci kër gi fekk na xale bu ndaw bii amagul fukki at ak ñaar moo ko jël te lépp du ko fas yéenee jox naar bi loolu dina doxalum réew xale boo xamante ni yaa ngi war a toll ci xam aw araf dugal ko ci sa bopp bii jàng ñu fexe ba jël sa bopp bii dugal ci maanaam sa tekki ëllëg naar bee ko war a def ah. mi sax indi woon nañ ko waaye PMI lu bon bon loolu mag ñi lañ doon gis ñuy dem di jënd ay numéro ay fas ak nangam nangam nga xam ne xale yi sax ñoom boolewuñ ci woon seen bopp léegi nag fexe nañ ba xale ba gën a ndaw bu xasee mën a wax ak mën a tontu rek léegi moom carte ñu ngi koy carte kon loolu baaxut di leen seetlu njaboot gi di leen seetlu njaboot gi di leen yar xoo min anfusikum wa ahlikum naara yàlla nee na ngeen fekk seen bopp ak seenu njaboot ci safara nit du ciagne da ngay jur rek sanni bo juré sa njabot dé ko jangal dé ko yar bo ñëwé del jiga sa dom del tok ci wetam del xol limi def ndax fi ni sa dom bobu nga bayyi amoo ci mom soxla lulul sa yo xiyé ya ngay wuti luñu lek ak luñu naan bu ngeen demee ba ci kanam tuuti di nga xamné la taxone yalla diko jox du nga jox ko mu lek rek wala nga jox ko mu naan rek wala mu soli yéré dina yak dina yak bopam te fumu jaar dinañ ni doomi diwo jaa ni ni ni rek lay mën mel ndax bayam, luñ ko wax rek waxale la ko yow kon yar len njabot gi yar len njabot gi soxna yi nañu muñ te gem yalla te xamni gor du yor kalis, gor moy ko xamanteni sa jëkkeer doon te dafa yor ciox sax ngeen xoram ko yeen ñaar ngeen mën dugg ci biir neeg bi lek ko ba sour nan ndox génn ci seen ngor waaye ngor du caagee ni soo génnee solu ñëpp xam ni solu nga boo demee marché ñëpp xam ni ñëw nga ci marché bi boo toggee di rusi ñëpp xam ni yaa ngay rusi loolu yàlla may na ko ku ne waaye ñun nañ toog ci suñ ngor ndax booy lekk lu lewut mënoo def lu lew kuy lekk lu lew mooy def lu lew waaye ku lekk lu lewut du def lu lew te njaboot gi kat ñun dañuy jur légui comme ni beuy yi ak xar yi di juré rek di sam xalé yi xamatuñ dara ndax wajur yi leen warona am jot yar leen ñom nekkatuñ ci seen wet yaa ngi yar sa dom yow yow nga jël sa portable ah tok ak sa dom ubbi ko di ci xol lo xamni sa dom mënu ko gis sa dom gisul li ngay sétane waye mi ngi dégg ciowli te xale yi léegi lu seen papa xam ak seen baay ñoom xam nañ ko kon yar dafay tàmbalee ci nga am sutura ah. nit warul nekk ak so warul nekk ak doomam ju toll ci wax walla dox muy summee ko ci wetam loolu warut nekk walla nga nekk ci wetam bi am benn xaba booy def ak waajuram bu jigéen moo xam fóonante la wala jonjante wala yooyu yëpp da ngay suturaal sa bopp ndax réew mi ñu nekk day réew moo xamante ni dëkkuwaay yi jafe na ñu ci bëree bëri dañuy bokk ay location ci benn kër nekk fa kon yow doomu aadama nga yàlla moo la jox xel boo nekkee ay xale bala ngay def dara fexeel ba ñoom sax ñu tëdd wala ñuy nelaw wala ngeen am lu leen taqale loolu mooy sutura loolu nag gone gu ci juddu sa sa waajur yi am sutura duñ ni mukk moo wiyal diw waaw parce que waajur dafa foor ci njabootam ndax lépp lu sa doom gis nga di ko def moom dina ko jéem kon nañ sutur nañ sutur la wu bu baax ah ñuy wàcce sunu kàddu foofu di wax ni nag réew mi ñu ngi jëm ci ay jongante ay élection li war ci élection yooyu mooy kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo ko jiite nañ ñu dimbali li waj illaahi ñu xam ni ñoom Sénégal tàmbalewul ci ñoom Sénégal du yem ci ñoom te du ñoom rek ñoo bëgg a dund senegaal ñu dimbali ñu dimbali njaboot gi ñu fexe ba nit ñi doxi seeni i soxla te loolu lu muy amee mooy ngi teg mbir mi lépp ci dëgg rek ñu teg ko ci dëgg ba fi Lat Joor ak Alburi jógee ba léegi si bala doom faleetu fi nit ñi ki ñu àndal am nañu sañ-sañu tànn ko kon nañ leen jox ay matuwaay ak conscience mooy xel mu dal moo xam ne dinañ am sañ-sañu tànn ki ñu bëgg a tànn mu jiital leen seenum réew ñu bañ ci rey kenn bañ ci faat kenn ñu bañ cee def ay pion yi ñuy def suñu politiciens yi nit ñu bëgg a jàppe baaxut ah dañ ñoo bëgg a def ay dof pour ñoom ñoom rek ñoo yeewu fu ñu leen fekk ñu ngi def ay pion mel ni ay carte kat yu toog ci place di yóbbante ay pion kii xëcc piyon bi kii teg pion bi kii teg pion bi kii teg pion bi ah? bu ñu waxtaanee bu ñu xëyee dugg kii jaar fii kii jaar fii ñun ñooy jur gi nga xam ne ñun la ñuy karkara ah? waaye ñun nañ ñu jàppee ay doomu aadama ah? dëgg mooy dëgg ku fi yàlla teg ci dëgg ñu ànd ak moom nga liggéey sa liggéey li ñu waxante loi dafa am solo lu luwaa bi wax ni moom nga war a def nga def ko pare ci génn ci ah xool réewu nasaraan yi sax ñoom nga xam ne gëmuñu yàlla dañuy def seeni mandat mu jeex ñu wàcc dem seeni yoon doxi la neen ñun buñ xasee ni fal nañ la rek waxuma la ministre waxuma la député sa waa kër commencé nañoo sabaru te yow ñu liggéey loola Lola la neex def waaye señ bi lolu bakagn mbir mi nañ ko jël tek ko ci deug kilifa diine yi aw fiñu wara war a aw ñoom itam bañ a bokk par-par gi kilifa diine du lo ndax ñun ñepp ñu yaakaar mi ni tay ñu and ak Macky Sall la nga fi ñu and ak Sonko nga fi ñu and ak eh, Idrissa ñu and ak kanen ñépp parti yi ngay dégg ci réew mi yëpp mu ngi nii toog te tey man maa leen jiite julli te boo leen woon tey ñu ci ëpp suñ xabaan mu ni suñu kilifa la waa suñ xabaan moomu kon dina tuutal boppam wala mu sewal boppam muy dem naan kii laa ànd ak ànduma ak kii kon nañu dollee góorgóorlu ñun fi ñuy xaar du foofu ñun ñu ngi ñuy xaar ñu teg nit ñi ci siraatul mustaqim woo leen ci ngor ak jaamu yàlla sëriñ si dañoo war a liggéey ñun sëriñ yi fi ñu teg baaxut ab sëriñ mooy lan mooy koo xam ne day am ay bee ah rek foo ko fekk du gor du yett du def dara day ñeeng waxam sax waruñu koo xam bu dee wax sax dañ ko war a jottali déedéet lool du sëriñ loolu lu ñu indil la waaye du diine bu fekke ñun ci ron yonent bi lañuy roy yonent bi mo daan waaraate bu fekke ci yonent bi lañuy roy yonent bi mo daan dem ci xare yi waaw bu fekke ci yonent bi lañuy roy yonent bi daan liggéeyal bopam kon yonent bi ñu tedd jaaxaan ñu diko fekk di siyar ak magal déedéet lolu beneen affaire la kon nañ gor góorgóorlu bu baax te ñu te ñu moytundiku xam ni buma waxe ba daaneel te tudduma ko dañ ne ah sëñ bi lu tax tuddul nàngam ñu bari seen xel dem na ci sëriñ bi xam naa bu ñëwee tey wàllu càcc dina ci gën a ba ndax euh, kuy wax ci ay xew-xew ba xew-xew ni tépp ci sa kaw boo ñëwee ci loolu nga war a njëkk a wax mu mel ni fan yi ñu ëpp ci jataay bi xam nañ ni sëriñ bi sàcc yi seet si woon nañ ko jël nañu juróom sëriñ bi itam waslu na àq ba gis juróom loolu rek la àddina loolu rek la waaw doomu aadama bi dafay sabablu da ngay sabablu rek ku bëgg mucc da ngay wattandiku ku bëgg am da ngay sabablu waaw sa alal buñ ko jëlee même boo xamul fa mu jëm sax yow doxal ci penk bi ba sonn rek wala nga jox dox ci ponk soow bi ba sonn loolu waaw loolu la ah <laughs> dañ lay li ñuy wax dëmm rey la jaarale lay doon dañ lay def li la def ba noppi ñew di la mat di la mas di la masaw si te ñoom ñi lay mat wi ñoo def mbir mi ha ah? lepp ñak gëm yalla rek kon nañ gëm yalla man alal duma ci nawé kenn ndax xamna ni alal mu ne nit man nako amé kon nak nañu fexé am ngor nango liggéey man buma rombé nit manam fekk ko muy tabax wala muy móol wala muy bay wala muy def benn liggéey sama xol bi day sedd ci moom lool waaw man loolu dama ko bëgg man loolu dama ci naw nit waaye man boo ñëwee di libar libari mel ni jigéen jooju tey góor ñëw nuyu ma danga ma jox sax addiya yaakaar ni sëñ bi kontaan na sëñ bi xolam mi ngi seet waa góor gi war a dem liggéey yi lan lay liggéey ba yaram bi mel ni jigéen nii ki lim sol parfum bi mi xéñ parfum ban la mi ngi xol sa nopi lan mo tax nga bënd ko tak ci ay jaaro ay cien sa bop bi ma nga lay jangal rek di la li nga ma jox yaakar nga ni intéressé na ma ak ma sof man lima ma bëgg nga nga ñëw ma xam ni ci tool yi la joggé wala ci maçon bi la joggé wala ci mool bi la joggé wala ci liggéey mécanicien bi la joggé wala ci ministre bois bi la jóge wala docteur bi la jóge wala ba ñëw fekk la ngay góor góorlu man kooku laa bëgg ndax ñun dañoo war a liggéey te gore mais fanaanee naa fi la guddi yendoo koor dong waxuñu ko dangay ngay jaamu yàlla boole kook liggéey mbokk yi nañu gëm yàlla mbokk yi nañu doylu mbokk yi bu ñu àddina këf nañu doyloo suñ ñaq yi ñu ngi leen di sant bu baax ñi ngi sant sëñ Basiru sëñ Balla ñi ngi sant sëñ Saalu Pir ñi ngi sant sëñ Ousmane Baaxum Ngaan ñi ngi sant mboolem alpulaar yi bàyyiwuñ wuñ kenn sëñ Koso ñi ngi sant sañ sëñ Moussa yéen ñëpp mënuñoo lim jataay bi sëñ Balde ñi ngi leen sant yéen ñëpp ñi ngi leen di baalu àq wax ji yàgg na waaye sunu dëkk bii dafa toll foo xam ne dañ ko war a defar te jikko du booy defar dëkk du caageen ay tabax yi mooy defar dëkk jikko moy defar dekk nit ñu baax ñoy defar dekk nit ko xamanteni boko wowon ci lu bon mu wet ak mu ñak wet ci yam mu ne la bëgguma waaw ngeen dimbali ñu eh, ngeen dimbali ñu aw ci yoon ndax nit ki aw ci yoon mo neex dekkal kon ñi ngi sant ñepp di balu ak ñepp di bal ñepp ak di wax ni nak ñun de sunu men mi ñu am diko nampal sunu njabot ñun buñu sa sañoon njabot yépp ci lañuy nampal te mooy siraatul mustaqim te mooy xuddan te ak njub yàlla nañu yàlla xirtal ci ak njub jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.